projet bi Grand Duché de Luxembourg moo ko financé moo ko financé institut mondial pour la croissance verte ñu tànn trois villes ñaari yi muy ville religieuse Touba ak Tivaouane beneen bi di ville de Dakar Touba lu ñu fiy def mooy dañuy valoriser déchets plastiques yi mooy mbuus yi du mbuus yi dong waaye mën na nekk bidon yi mën na nekk yeneen tibu plastique yi donc lu nu bugg def mooy créer benn unité boo xam ne dañ fay valoriser déchets yi mais type de valorisation bi. étude technique la ñuy def pour mu wax ñu ban type de valorisation moo baax pour Touba parce que l'objectif mooy du du dong defar mais defar di ko jaay ba pare di ko boo ko jaayee am si euh, bénéfice ba pare projet bi du nekk benn projet benn at ñaari at mais projet boo xam ne day durer te yeneen dëkk dañ si mën a euh, référé wu. donc moo tax ñuy def étude boobu étude boobu day am aspect financier day am suñuy wax business plan. day am aspect environnementaux ak aspect économique ak social aussi parce que bëgguñu tamit di gaañ ñoo xam ne ñoo ngi jëriñoo ci euh, déchets plastiques yi donc loolu mooy suñu objectif projet bi tey dañu ñëwoon pour rendre compte mairie ci liggéey bu ñuy def parce que gëjoon nañu fi depuis mois de mars beneen fànn yi mooy également préparer mission consultant yi war a ñëw dañu moo recruter ñaari cabinet benn cabinet bi mooy def étude de faisabilité comme ni ma doon expliqué léegi définir option technologique yi définir les barrières éventuelles les rôles et responsabilités des acteurs ak yan option lañu war mettre en œuvre ak lan mooy dimensionnement unité bi benn cabinet bi ONG lay nekk ONG boo xam ne day nekk à Touba pendant 30 mois pour accompagner le projet dans le changement de comportement day ñëw avant ñu placer unité bi day ñëw durant placer unité bi ak même bu unité bi di exploité wu parce que changement de comportement si si euh, dans le dans le champ du changement climatique waaw si wàllum changement climatique changement de comportement daf si am solo parce que climat yi bu changé suñu comportement yi moo tax mu changé donc il faut que ñun tamit ñu changé doxalaay ñuy doxee changé suñu suñu vision bu nu am si climat bi ak si environnement bi changé également suñu vision bu ñu am si plastique plastique lu bon la loolu dëgg la waaye plastique mën na am njëriñ si création d' emploi pour jeunes yi si yeneen élément mën nañ defaree plastique ak tëli mën nañ defaree plastique kër mën nañ defaree plastique ay table banc mën nañ defaree plastique ay yu bëre donc loolu moo taxoon ñu ñëwoon fii di expliquer maire bi fu ñuy fu ñu toll ak fu ñu jëm. unité bi incha allah bu étude yu paree unité bi bëgg nañ ko taxawal en 2021 au plus tard fin 2021 bëgg nañ unité bi commencé di fonctionner. emploi mënu ma wax exactement si employé parce que option technologique ñooy indi ñooy ñooy déterminer emploi yi mais lu mu dee dee dinañ créer au moins 100 emplois directs sans compter emplois indirects. parce que projet bi du seulement ñoo di liggéey si unité bi mais ñooñu parce que unité bi trois mille trois ton lay exploité par jour alors que Touba am na six tonnes yeneen si trois tonnes yi am na ñeneen ñu ko mën a exploité te ñooñu tamit dañ leen di forme pour ñu mën a gis opportunité yu déchets mën a am. waaw projet bi wax bi du si sore trop parce que du suñu euh, compétence parce que ñun déchet plastique rek nañuy nañuy nañuy gérer même si dañuy liggéey ak UCG waaye projet benn stratégie ville stratégie ville verte mooy ville bi nan la mën a intégrer aspect changement climatique ci biir doxo nu muy doxee te bu ñuy wax changement climatique wàllum déchet si la bokk parce que déchets yi souvent ñu ngi ko bàyyi noonu à l'air libre bokk na su di contribuer di lakk la couche d'ozone couche d'ozone moo tax muy gën a tàng couche d'ozone moo tax taw bi di di irrégulier euh, lu tax mu koy lakk parce que mbalit yi day lakk mbalit yi nu muy laqee noonu mooy produit méthane méthane benn gaz bu dangereux la voilà donc bu ñu créer ay euh, centre de traitement de déchets mën na tax ba problème yi du mën a dina mën a réglé wu wàllu man sama wax si wàllum déchet plastique la mën a yem pour yeneen aspect yoo xam ne c'est par rapport aux déchets de façon générale foog naa ne UCG moo war a nekk seen interlocuteur merci. waaw euh, man maa ngi tudd Ibrahima Sall di adjoint au sous-préfet de Ndam di am mbégte teewal fi sumay kilifa ci wàllu administration territoriale. ànd ko ak commune de Touba ànd ko ak acteurs yi consultant projet ji ji ays muy projet boo xam ne euh, du Grand Duché de Luxembourg moo ko financé ànd ko ak état du Sénégal pour ñu koy gérer mbalit mbalit léegi dootul lu ñuy sànni bu yàggee dootoo xam noo ciy def mbalit léegi lu ñuy gérer la maanaam dajale ko trier ko transformé loolu moo indi projet tey atelier bi ñu doon def ce que ci gàttal mën nañ jàpp ne li ñuy wax ne yenu xatu xëddeen dañuy yëgu parce que nit ki lépp loo koy defal même bu dee njëriñam la soo koy def te yëgu ko mën naa jàpp ne da nga koy def contre moom donc il faut que mu yëg ko mu xam ko boole ci biir boppam jël ko def ko yëfi boppam pour que mu mën a réussir donc monsieur Allé ak équipe dañoo ñëw miser ci changement comportement Touba dafay ville phare dafay ville modèle véritablement dafay dëkk boo xam ne vitrine la donc lépp loo xam ne dañ ko fiy def rek dafa war a rafet dafa war a taaru dafa war a ñoŋ dafa war a ànd ak yar dafa war ànd ak sérieux dafa war a doon exemple parce que li dëkk bi représenté la donc ñu xam ne dëkk bi li muy générer en matière d'ordure surtout pendant les màggal on parle de 3 tonnes 6 tonnes par jour 6 tonnes de déchets par jour fépp fu muy génn bu amul organisation bu sérieuse véritablement mën na indi catastrophe surtout ci gestion des déchets plastique bi seetlu nañ fi ni am na solo trop projet bi parce que Touba am na fi zone yu bari dafay inondé bi ñu defee études moo on s'est rendu compte que c'était des zones yoo xam ne tuurukaayu mbalit la woon et que tuurukaayu mbalit lu ci ëpp dafay am ay déchets plastiques donc ñoom ñoo empêché infiltration ndox pour mu bañ a dem bañ a dem moo tax souvent mu neen ay zone inondable di ay point bas c'est déplorable ñi nga am yaakaar nag ne ak projet bi véritablement lépp loo xam ne déchet plastique la ak solide dinañ ko gën a organiser mën ko valoriser nga xam ne dootul gaañ population mais également dina doon seen njëriñ ndax dina créer ay emploi ñoo ngi dégg léegi directeur di wax ne gàtt gàtt projet bi dina employé 200 ba 300 jeunes 100 employés de manière directe et presque 300 de manière indirecte donc loolu lu am solo la ñu ñaan population bi ak ñi mu àndal ñëpp ñu jàpp ci projet bi pour que véritablement mu nekk njëriñu Sénégal généralement parce que Touba Sénégal yëpp fi ñëw Afrique yëpp sax mën naa ne monde entier bi yëpp mais nekk njëriñu waa Touba en particulier te population bi jiitu ci